def nañ formation bu baax li ñuy xaar moy liggéey rek comme niñu ko réew mi santé comme niñu ko suñu ministère santé loolu rek lañuy xaar ci ñun donc yaakaar naa ñu nekk suñu gannaaw yëpp loolu lañu ñu loolu la ñu loolu la sant défi yi rëy na je pense ku nekk xam na ko tout le monde en est conscient maintenant c'est à nous personnellement ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu ñu affecté nouvellement ñu jot suñu diplôme tey liggéey rek moo ñu war parce que justice dafa compter ci ñun donc liggéey moo ñu moo ñu war te yaakaar naa ne nit ñi duñ leen décevoir ci loolu. ñu ko fas yéenee jëfee mooy appliquer li nga xam ne moom noonu la ñu fa loolu ci loolu la ñu formé mooy métier greffier. donc métier greffier yombul jafe na peut-être ni nga xam ne activité nekk ci biti nekkuñ ci tribunal bi xamuñu li liggéeyam mais ñun ñi nga xam ne formé non pour ñu def liggéey boobu non yaakaar naa comme xam nañ et dañuy ñëw pour parce que nous devons commencer mais avec la pratique je pense qu'on va acquérir l'expérience qu'il faut pour pouvoir faire def comme ni